ak mhm. ku mënta doon laa la wax mhm. taxawaayam bii ci hémicycle bi cette fois-ci ça va changer et au profit de la population sénégalaise. d'accord euh, euh, seen leader dañ koy ŋàññi lu bëree bëri ci surtout presse bi ah, temps yi amoon nañ fi ay jafe-jafe ak euh, moom bu ñu bëri sax di yëkkati seen ay kàddu ci déclaration yi ñuy servir tout le temps des déclaration à chaque fois su woowee presse bi c'est des déclarations et, euh, euh, pourquoi pas conférence de presse nit ñi mën a poser euh, journalistes yi mën a poser seen ay question ci yenn ci yenn yenn yenn yenn yi fi am donc ñu xam ci position Ousmane Sonko réellement mais duñu ko duñu ko may ñu bëri ci ay journalistes ñu ngi koy ŋàññi nag. bon noo gisee noo gisee non loolu façon sa façon de faire. ak ak les la presse non il a pas il y a pas une façon de faire à son Sonko. Ousmane Sonko buy ñëw dana chaque point de presse lay def wala conférence de presse. gëj naa def ko bu ñëwee ne waaw bu gëjee def point de presse. ay ay at ay at a ngi nii mais son agenda mais selon son agenda mais selon son agenda. nit bu amee agenda am tamit da nga koy nangul léegi nag y a une certaine presse bu utiliser loolu. pour ne oui il refuse des ay quelqu'un quelqu'un boo xam ne si ni dafa dafa dafa aspirer diriger réew mi aussi ne dafa bëgg yore réew mi je pense que war nay man di eh, di jox presse bi benn temps boo xam si dina dinañ leen dina leen ñu mën a poser seen ay questions mais ma ma euh, Mahfouz mais comme si daf ñuy dafay daw presse bi dafay daw eh, ay question euh, presse Ousmane Sonko mosul daw question presse yéen ñëpp xam ngeen ko au contraire yéen moom c'est le seul bu nga xam ne que ñaata point ñaata conférence de presse la fi def boobu ak léegi ak léegi bu ñuy commencé di wax man y' a un agenda a un agenda avant son problème avec Adji Sarr am na agenda bu nga xam ne avant son problème avec Adji Sarr doon na def ay conférence de presse mais après affaire Adji Sarr bi gis nañ ni que ay ay point de presse ay déclaration li servir presse bi te je pense que tamit presse bi eh, mérité nañ lépp loolu ñu mën di poser seen moom laay wax ne bu conférence de presse jotee bu soobee yàlla Ousmane Sonko dina leen woote conférence de presse bu de presse amee. plateau yi moom plateau yi moom kenn xalaatu ko ñi ngi wax Macky Sall mais moom aussi plateau yi kenn xalaatu kenn kenn du ko ci gis <laughs> ñi naan Macky Sall su Macky Sall sax ñi naan bu bëggee wax day dem day dem ba fii mu wax. wala mu dem France 24 mais euh, Ousmane Sonko moom kenn du ko gis ci suñu ay plateau. <laughs> ñu ngi koy xaar ñu ngi Sénégal 24 soxla nañ ko nag te ñu ngi koy xaar ah. incha allah pour mu ñëw toog fii nga toog ñu waxtaan ak moom. ci ci ci ñu waxtaanee Sénégal comme nee na Sénégal moo ko ñor. incha allah bu si yàlla àndee bu si yàlla bu si yàlla àndee bu soobee yàlla. Mhm. Ousmane Sonko c'est pas une personne bu nga xam ne un leader bu nga xam ne day daw presse bu nga xam ne bu jóge ci réewam parce que toujours dafa mos wax ne que euh, doomu réew mooy tabax réew. Mhm. donc tey tey tey tey la presse sénégalaise taxawaay bu mu war am boo xoolee il s'adresse rare très rarement même à Euh, Ousmane Sonko lu mu daan wax bu njëkk bi olof la daan olof olof la daan wax parce que ñun sax dañu daan wax ni waxal leen sénégalais ak olof ñu mën a dégg li ngeen di wax. Mhm. bàyyi leen français bi ngeen di wax utiliser les mots faciles yi nga xam ne que sénégalais yi dañ ko mën a dégg mais bàyyi leen yi ngeen di utiliser bu demee bay wax tey parfois olof ak français c'est parce que la demande au niveau de l'Afrique et très forte tey sénégalais tey ñu nekk Afrique ñoo bëgg a déglu Ousmane Sonko lan lay wax askanam. moo tax il est obligé léegi mu def. wolof ak résumé ko en français en français. mais pour te dire par rapport ak li ngeen di wax point euh, euh, ak déclare ak euh, point de presse ak conférence de presse yi bu leen fàtte ne Ousmane dafa am agenda pour ça il est il il est maire actuellement même. mais saa yu bëggee def point saa yu bëggee def point de presse am da koy def ah. mais agent moom laa la wax agent mais agent. point de presse bi ça dure même trois heures de temps. mais agent tey loolu point de point de presse man pour man. wax li nga xam ne moom gën a productif par rapport ak li nga xam ne parce que tey bu ñëwee bu fekkonte ne am na li nga xam ne que lu lu lu leerul askan bi. lu leerul askan bi mhm. gaa yi bëgg ci lu leer. mooy conférence de presse day ñëw taxaw wax ne posé leen moo wax leen ci leer mais instant yi tolloo ko ñu fu nga xam ne Ousmane Sonko dafa war a wax. lu leer bu ñu ko falee ba pare ah. bu ñu ko falee ba pare bu ñu ko falee bu ñu ko bu nekkee président non dama ne agenda mën na def conférence de presse ça ne dérange pas mais dès demain mën na def conférence de presse. yaakaar dès demain mën na kooku Ousmane. demain demain suba suba mën na fi ñëw ci studio bi c'est un Sénégalais c'est un citoyen sénégalais amul amul territoire interdit. Ousmane amul fenn ku ñu koy interdit Sénégal. Hmm. donc bu naree ñëw fii day ñëw bu naree def point de presse day am point de presse bu naree def nga xam ne si ne nekk Pastef yéen a ko jege au fait loolu moom euh, presse dañ koy sàkku ci dañ koy sàkku ci ci Ousmane Sonko muy def ay conférence de presse mën a jàkkaarloo presse bi presse bi dañu am ay euh, journalistes mais lu tax doo leen doo leen doo Ousmane Sonko tey dañuy dem Ousmane Sonko tey géréwul géréwul Sénégal Ousmane Sonko tey géréwul Sénégal mais tamit dafa mais ki nga xam ne moo fi nekk mooy Macky Sall yéen lan moo tax Macky Sall Macky Sall doy ko mu def point conférence de presse ak yéen bind nañ ko même fii Sénégal même fii Sénégal Macky Sall dañ koy ŋàññi ci loolu ah Macky Sall dañ koy ŋàññi ci loolu man taxaw nañu ŋàññi ko Macky Sall li muy li muy def d'accorduñ ci mais wax nañ ko wax nañ ko mais dañu gis ne Sonko aussi ci tànk boobu la jaar yéen ñi nga xam ne que yéen ñi nga xam ne la presse sénégalaise mm-hmm. seen organi seen organisation boobu noonu mm. réunissez-vous mm. ne leen dootuñu nangu Macky Sall di def point de presse wala def conférence de presse mu ne Mahfous yow yaa war a ñëw Cheikh yow yaa war a ñëw Euh, comment dire encore Fatou yow yaa war a ñëw ñeneen ñi bu ñu ñëw ñuy tànn seen i journaliste Ousmane Sonko mosul tànn ay journaliste Sonko il a fait il a fait dernièrement def na ko invité fii def fi kii euh, Walf la ko defoon je pense ñoo ko sàkku ut ay yoo xam ne si nii peut-être que non ñoom la ñoom cest ñoom ñoo ko sàkku ci loolu tey tey tey tey ma fos yow boo naree def fi émission hmm. bu la neexee émission boobu noonu nga ne bàyyi ma invité Moustapha Diop bu Walfadjri wala mooy ma